yaa nag tey dama ñëw pour offrir la cadeau bu spécial. cadeau parce que xool naa kër gi ba mu daj yow dong laa fi gis nga respecté di julli normal yow kese te loolu tax na ma dem ba ci mami borom five gift. five gift falaa la jëndalee lii te lii benn dong la si cadeau yi de gis nga. tuus rafet sax. am na bi muy def sax gën a rafet. ah macha allah. te gis nga oh quelle belle surprise lii nag day moom dina tax ma gën a. fonkat encore jaamu yàlla gi. macha allah julli rek dañ si ñaanal nag. yaay oh. gis nga ak si jaarale. dem ma ko tàllalee ba ne allahu akbar ba ñaanal la li nga xam ne lépp dëgg la ñaanu xaar saa lay defal waaye sant yàlla rek alhamdulilah gis nga xadi mu jullit te julli julli dafa baax man nag su ma jullee jullul ma mbedd mi jullul ma kenn sama bopp laa julli nit dafa war di jaamu yàlla waaye xam nga ni mami mii euh, kiyam bi xam nga ne pratique na de ah? moom daal tout ce qui est moom def ci spécialisé wu ne mu nekk cadeau d' anniversaire lépp li nga xam ne bëgg nga ko da koy personnalisé ay chocolat personnalisé moom daal lépp daf koy def. man li ma gën a bëgg sax nga ma jox sama àdduna muy kurus ak kola. sijaar daal bu ko defee man ne ci rek man daal li laa bëgg man. maa ngi sant yàlla man it nag di ko ñaanal yàlla moom gudd fan ak wér ak wér la di la ko ñaanal yow moom dama lay ñaanal rek sëñ Maal jur yàlla na la yàlla bette ak bettu xéwal. amiin barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa trop. nga xam ne doomu euh, ku baax boo bëggee maandu mucc ci yu bari da ngay jaamu yàlla ndax da nga seet suñu société bi ni mu mel man fi mu ne léegi damay ubbi internet bi damay tiit ba tëjaat ko ndax xadi man damay je me demande sax yenn saa ndax ci weeru koor lañu ñu ne ku ne yaa nga dénigrer sa morom lu bon loo xam yaa nga koy wax fa mu gën a ñaawe yaa nga koy wax réseaux sociaux yi nga xam ne lu fa dugg tag balaa muy def une seconde def na le tour du monde yu bon rek laa ci gis yu bon rek la ñuy waxante sutura ana sutura kenn suturaatul kenn boo ko xamalul nit sax danga koy daal di social génn na ko nag ci réseau sociaux ku ne di wax ñu ca ba ngoon jot ñu ne dañoo woor wooruñu dañuy xiifal lii ñaaw na nañu seetaat suñu bopp nañu xoolaat ci yàlla li ñu nekkee dara jaru ko yàqante beeg ndax ku du suturaal doomu yàlla du la lu ñaaw li ci dëkk bii ne ci réseaux sociaux yi Sénégal gi tas na nañu ko bàyyi ngir yàlla ay nañu dellu suñu xel yi te xam ne àddina jaru ko nit du yàq moromam nit moo mën a suturaal moromam nit moo mën a defaral moromam nit di nga dox ba gis dara sax sa bi yow ak yàlla rek yéen a koy xam nit ki xam ne gis nga ko nga sàng ko sutura deewaale ko te yàlla rek tax ku ko def yàlla suturaal la waaye lu bon la ñu nekkee internet bi àddina tukki na man suba gu ma xëyee diw nee na diw nangam diw yaa fi defoon nangam yaa defoon nii góor diw nangam jigéen lii ba kañ. yaa daal li ñuy gis métti na si xol. mënuñu si dara fi mu nekk nii comme ni ñu koy defee rek di continuer di ñaax nit ñi rek parce que nit ñi tamit même bu fekkente ni danga leen di wax xam nañ li leen di jariñ ak li baax si ñoom te teewul dañuy def li ñu bëgg loolu doo def dara lu dul di leen ñaar rek yàlla soppi leen. xool naa ba xool raison garde li ku baax ka daan wax naan yàlla na yàlla tàppe xol yi rek waaye war nañu delloo si waat suñu xel de àddina jarul lii. yal nañu yàlla musal seytaane bi dugg ci dëkk bi ci weeru koor gi yal na ko fi yàlla dàq dañ naan dañu tënk seytaane da waaye xam naa ni dama foogoon daal làqatu si woon Sénégal Iblis moom Sénégal la làqatu si woon taw a génn ndax weeru koor bii li ñu wax lépp ci lu bon yal nañu yàlla jëkkal yal nañu yàlla musal ci seytaane yal na yàlla tappe xoli te delloo si xel yéen moom nag yàlla ma ne woon duma leen di ñaanal yàlla rek yéen moom dala ndox amin rek bu ma jógee léegi balal tàkkusaan ñaanu xaas di nga xam ne lépp dëgg la <laughs> kon amee ah, na macha allah. bon li tax ma woolu leen nag kaabi dafa critique moo tax ma ne réunion bi damaa programmé woon sax ñu dem fenn benn resto toog fa ñu tête à waxtaan ndax kaabi dafa critique gis ngeen lu ne di bu génnee rek cas bi critique na problème nag bu mag moo fi am nii. nday doo ma balaa ngaa wax problème bi. sa verre yi est-ce que yaa ñu moom ndey ba nga tukkee ba tey ba nga ñëwee ba tey da ngaa changé look yaa ngi làkk ay anglais ñu ne déet na waaye mu tekki ay verre. lii la damaa judduwaat na loolu amuma si droit mais xadi concentré wul concentré wul fii wet léegi li ma lay wax mooy as problème am na waaw ndax problème yi sax xam nga mënoon naa koo régler individuellement mais dafa doon problème collectif. man de sax ba diggante ba sax yoon yow man damaa sirk ak ba dara waxuma ak ba. problème bi ci eh, Fatou Kiné la jóge Néné Touré waaw man léegi dindi naa Néné Touré ba mu set na xale bi fréquenté na ma dugg na ma jël sama barrage sànni ko dale ko na ñëw attaqué ma direct waaw léegi yow moom dangaa jokkoo ak moom pour léegi ñu wàññi bale bañee pour mën laa jokkoo ci kii mais yow xadi baaba nag boo ma joxul say nopp nag doo am li la bëgg non non xadi baaba déglu ma rek ndax euh, cas bi li tax ma wóolu leen da ngeen cee bokk moo tax nuñ ci bokkee Néné Touré ñun la jiñ si daa foo ne ndax bu nee ma demal defi test sida kon saaba diir dire que ni mun ma kër gi ñëppay jug dem defi tes ndax sida du ci réew man nag nee na tuuti diin na ma lu ne ma baal ko waaye lii dafa dafa dafa diis de eh, ki ne moo ne la ñun dañoo sida wala yow dangaa sida déglu asu xanaa li ma la wax bu baax Fatou Kiné ma kër gi ñun ñëpp dañoo war a dem defi sida ndax man nag moom sax la waxoon ne dañoo nekk en état te wóoru la ñoo war a dem defi test bi ndax suñu dooma tax pour ñu ñuy def affaire bi bu fekkee jàngoro bi dafa nekk ci ñun ñoom ñu dugal traitement beeg yooyu de ba doo ba du lor suñu doom ma ne ko ah nee na tuuti oh, de ba jiinee lii dafa mel ni que man li ma kon li ma demoon Maroc kon na dama faa nekkee woon ñu bon. waaw ah, loolu de ah loolu la lim ñu jundee xam nga la am jëkkër am fat waaw kay ni moo bi lii la am jëkkër am fat mais moom moom moom ndax dane ma ah, seen jëkk yow daal kii na mënu ma leen ko wax na xam naa ne kon di ngeen ko attaqué mais Fatou Kiné nag mënoon naa mënoon na anam parce que loolu mu la wax noonu dëgg la parce que nit ankay li mu la wax nit mën nga ame amee si daa mais nga ëmb sa doom sa doom wusuñ ko ci jàmb te du ko am waaw jàngoro foo koy jëlee asu mais asu mais mais jàngoro bi mën nga ko am mais mais mais mais yéen lan ngeen teg sida yéen sida da ngeen feebar boo xamante ni daal feebar bu bu métti eh déglu xanaa baam yow jànguma ko yow moom naxa naxa nga kii moom développé bu baax waaw man jànguma moo tax may laaj pour xam mais sida moom day rey man kan nga fi gisati bàyyi ma yow médecine développé daa nga gis ko ne xam nga dañ la naan da daan siddi jeexal la tàq amaw koŋ mën ngaa am yaram nekk ci say activité macha allah ku la gis ñee la te yaa ngi jàng doomu jàngoro ñoom ñu ngi koy rey sax nag nag comprimé yi ñu lay jox da koy rey da koy rey complètement mais man nag le fait que kii di ñu lii man moo ma naqari nag ah, ah, loolu la naqari ñu gis moo ma naqari Fatkine nag naa ko lijjantee ak moom ah dañ koy lijjantee waa léegi comme xam naa ne sida moom rayatul mm. Fatkine dootuma ji ñetti sida dootu leen ko ji ñetti xam nga yéen kër gi yéen bàyyi leen ma rek ma jël combat bi xam nga damaa gaaw a xeex daan dangaa gëj a xeex na daan na jëlal xeex bi xam nga damaa gaaw a xeex Fatkine jël ko ndax yow ah, sa diggante sa diggante léegi nag xam nga nooy neexul moom dama koy juutal ci xotti yi laay dóor ba mu nooy nepp xam nga daa ëmb ndax ku ma yóbbu police lay bañ. waaw waaw ci yi laay doon ma yóbbu naa leen indi naa leen. daan kenn du la yóbbu fenn kenn ba mu saf dóoral ba baaba yow xat baaba lan la dóoral xat kii dafa yalaate dóoral ba dóoral ba mu saf dóoral ba mu saf <laughs> ay affaire bi ni ma def te yéen a seytaane rek ngeen man di ngeen ma dugal ma dóor fàttali pourtant xoolal fii laa jël fàttali di ko défendre kat keroog bi fi umu umu indee sukkur koor di ko défendre di la mais gaa li nit ku ci nekk ku ci nekk war ngaa dem defi test xoolaat say yaram waaw parce que xadi baaba mën nga ko am te doo ko yëg doomu jàngoro jàngoro ji mën na nekk sa yaram doo ko xam ngay wëyaaleeg moom te doo ko xam. mais nga de as ñun dañoo def li indi euh, question da ngay def mën na ko jox ci anam boo ko dul yëg. mais nag bu boobaa boo demee ba dem defi test ñu ne la dafa positif. am na mm, ndaw yu ne mm. ci dëkk bi nga xamante ne ñoom. Mm. loolooy seeni liggéey. ñoom soo demee ci ñoom mm. dañ lay dalal léegi naa pat ak organisé lañ buñ ko xamee ah. déggoo li ma wax dañ lay dalal ne la dalal nga dal koo bëgg ñu xam ko boo ne kenn kenn du ko xam mm. yow cundum ak ñoom ak mm. yàlla yéen a koy xam ñu jox la garab yi ci war toppatoo la lijjanti la teg la ci heure ak ak ba dara du la jaaxal man affaire dama koo xam est-ce la est-ce que eh, nday man pour ngeen dégg ko ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam man dama yem defi test sida man dama koy def kii li mu su nekkul sa nekk gis nga bés ba ma koy dem defi damaa def ma ne leen damaa bëgg a def test ci saa sida ñu ne ma test sida ma ne ko waaw mu ne ma kaay toog ma toog mu ne ma ko sama benn xarit Tamsir Dia ma ko sama xarit mu ma ah ma ne ko waaw Tamsir sama xarit la mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ma waa baax na mu ne ma waa baax na ma daal di toog mu daal di may defaral yëpp ne ma bu subaa nga ñëw jël si ko ci suba gi ba ñëw bu ma ñëwee mu taaj ma ne ma euh, yaakaar woon boo ko amee da ngay am sa xarit boo koy wax rek mm. sama fi di commencé naan tëg tëg tëg tëg ma ne ko waaw mu ne ma waaw résultat yi génn na alhamdulilah sant yàlla waaye nag dafa négatif mais lii nga def bu ñu sañoon wax lii waaw ma lii bu ñu sañoon ñëpp ñëw di def ni yow di roy tin nga non bi ma ñëwee négatif damaa kontaan waaye bi mu nee ma. yaa ne woon ndax da ah, négatif moo baaxul bàyyi bi mu nee ma nag boo ko amee di ndax am nga koo xam ne am nga confiance bu wax ko. Ah. ma ne waaw bi mu nee ma yaa ko xooloon loolu damaa tiit damaa foogoon ne affaire yi dafa positif. mais loolu newu ci. waaw léegi wuy ma xam nga ah. nee na tuuti. ni mu wax dëgg neex yàlla xëy na waxin wi rafetul rek. moom ba rafetul rek. waaye nag kenn ku def dépistage. dafa yabaate moom dëgg yàlla garaaw nday boo demul ñun duñ dem sakam yow mi ëmb yaa mën a daw wax nañ dem rek man moom ba ma ko defee yàggul sax waaye nañ dem a gunge leen wan leen baa saful test bi muy yow doo ko sax yëg dañuy takk fii jël sa deret rek loolu kese la jël sa deret doo yëg sax mbir mi te léegi da nga koy def léegi gis mu génn ci saasi au lieu muy xaar suba da nga koy def léegi mu génn léegi looy wax ni ma yow yow kon comprendre affaire bi man xam naa affaire bi de ah, man bu ñu waree ma def ah yàlla baax na as man de mën naa ko de ba preuve du contraire ah alal dara lala anara <laughs> ah dara ah yaa doomu nday yaa ngay weerante nag nday ah ni nga waxee kañ man kañ waaw mais xam ko boo taxal moo ko ji diñu mënu ko ah waaw waaw mënu ko ji yow ba sa kër gi tojotoo jaxasoo ah kër gi man kenn xamul ban ban genre kër la sa jabar yii ay ba boo xamoon nañ la complot ay ba wat seese ba xam nga maa ba xam nga ne final nga jëm. man yow ba xam nga ne final nga jëm. final kenn du ko joué dañ koy gagné. dañ ko yow xoolal xam nga dañ koy joué xam nga dañ koy gagné ko joué dañ ko gagné dañ ko gàddu coupe ba dañ ko gàddu trophée ba. mën ndax lii ma gis ci biir kër gi nii kër gaa ngi jàmbatoo ba mel ni ñam mbaam les quatre points cadres sont l'ouest, l'ouest, le nord et le sud. fii ngi nii gauche ñii nga droite waaye nag man. li waral loolu. kooka la. li waral gi def noonu. li waral loolu may reñoo. ma yow Ndeye Ndiaye mi tukki ba ñëw. nga yëkkati xaalis bari jox Ndeye Ndiaye. yaa ko jox Ndeye Ndiaye. ñi wax ne si si si di làkk ay anglais ak ay espagnol. mënoo tukki dafa fukki fan bëgg a làkk làkk seen làkk moo tax ne amewul xam te njàngam toll foofu xam nga la xam nga lu ma lay xamal kër gi nañ ko lijjanti na nga liggéey sa kër gi sa kër gi jaxasoo na sa kër gi rëbbajoo na sa kanam gu wét bu dem gi sa jabar yi nan la lijjanti dégg nga. Ah, nga di trop ku ñàkk fay da nga yow amul benn benn y a pas de yow amul ah, laaj rek yow. Hmm? yow da ngaa gaaw a fàtte wala lan la. man sax ngeen ma fi def loolu ma fàtte man. sa sàccu bërki dem hmm. kii nag yow nga fi def. sàccu ga. yow sa jëkkër joxul la fi trente mille dépense. nga dem carte ko ñëw naan dañ maa fëkk di ko jiñ jagataay ñi amel ak jagataay nag bari nañu parce que lépp lépp ñoom la rek ci seen biir am na ñu bëgg liggéey bi am ñoo xam ne dañ ci yor seen njaboot mais am na ñu dëng ñooñu nag ñoo tilimal seeni der waaye du jagataa man a dëng yow nag jiñ nga leen ko te fekke ne da dem carte xaalis bi jigéen ju day ni yow sa jëkkër war a ndogu si jox la dépense yow man sa wóyu gi xaw foo ko jëlee bañ nga sa acte yëpp affaire la xoolal sa bopp bi ni nga ko def boo dinoon sa musóor gi di du wëy wëy li naan ay rocci jàmm xëcc bàcc yëfi du wëy yooyu lu la ci digal ah nga naan danga may yedd ak bopp ah man lii dinaa ko réglé man sama paradise laay moo fi yor ay lu ma ko dimbalee wala yërëm ko mu ñëw weer ma ci ëtt bi loolu man dinaa ko ko def dinaa ko réglé boo yoree sa jabar ah, ba ni këpp

su ma morom doo fa ne di kàtt ba ba tey tudduma sama tur leen baal man moom ki ma gis moom pour pour fii samb laa koy wax ak ñooy président jakartaay te yow dinañ la pelant yaa leen ko ji man ki ma ki ma gis man waaw yaa leen ko ji pour man sax ba bàcc bàcc jakartaa la du bàcc ah. bu dul amen nguri amen nguri amen nguri bu dëkk jaxaaw amen nguri moo mën a këf sama saak wala lamdin këf sama saak wala draman këf sama saak ara jakarta ba moom am nañu ko ci ko sama sax. ndax am na benn booy bu ñuy wax Alec moom dégg naa day moom. xaw oh, ma ñoom daal ñoom ñoo man tamit. liggéey naa ma. waaw man déggoo la man sàccu ma man damaa demoon doonul lu yokku. man moom ñii moom seen problème dina régler ndax la ma fili Diallo wax lépp ak ñoom Fama dinaa ko def danaa leen wàcc ñu dem fa ñu jóge ñu xam. ñu xam dina xam ne sa jëkkër ju bon ji ñoo gën sa faru baax foofu du benn xam nga yow sax bi nga amee jëkkër léegi consommé ko xam nga ni jëkkër du xam nga ci dara ah, man ni ngeen sëyee man yàlla bu ah. ma ko sëyee man ah. sëyib xeex sëyib xuloo sëyib rëj rek sëyib teesante hmm. bu kii ne je kii ni tii kii dugg ca wàññi kee génn hmm. bu kii dugg ca wàññi kee xorom hmm. bu kii xoromee kee suukar ñu def ni mel ni ay weñ man sëyee binom binom du sëyee noonu de na lu des de sëyib deux ans kenn consommé wu ko eh. yéen doog jàmm na nga def yow laay nuyu na nga def bon ok xam na laa bëgg nga xam ko euh, maman doo suma doo suma gel suma jabax nga mënuñu saa yu nu xuloo ñaari fan ñetti nga ñëw ci sa kër papa dafa am yoo xamante ni dama ci sonn est-ce que yaa ngi dégg ne xam naa la guddi ne xam naa la bëccëg léegi xam na laa bëgg dama bëgg nga jël say bagage nga jaare ñu dem kër ga parce que man sonn naa mënuma am suma jabaax mu woon ma ginnaaw yaa ngi dégg ma ne cundung ca kër ga dama ci maax dama ci maax vraiment dama ci maax ñëwal nga jël say bagage ñu ànd dem kër ga si ça juba dama def loolu te ñëw. xam la laa bëgg nga génn suñu kër wala ma ñuus la. maman nga ni. dama ne nga jub génn suñu kër ci biti laa la wax amul ma wax ak yow. mais attends man damay bëgg attends man damay bëgg waaru la lan yow man ngay saaga yow ah c'est parce que da nga nekk sa kër moo tax nga may saaga. non ah, non ay ah, ma. waaw kii kañ la dugg si kër gi yow la maa ngi dugg indil la saabu bi ak euh, crème bi man kii kañ la ñëw fii. je viens d'arriver. baas puusal. yaay li nga yaakaar du loolu de. lan kii ma dégg ma yuux bay tëgg taabal bi. waaw yaay da nga yaakaar du loolu kii maa ngi moom coowuñu de dañ doon waxtaan. moom moo tàmm buy wax di wax ci kaw. waaw léegi man li tax man li ma li ma jaaxal mooy awa man léegi laa jóg léegi laa jóg jëli saabu bi ak a épilatoire bii man minute yi ma fi dugg kañ la fi bàcc dugg ba bëgg a xuloo ak yow. léegi la ñëw daa ñëw toog ñuy waxtaan. Ah, mais man daal wa ñoo maa yow ñuy waxtaan. waaw ah, dañuy wax dañu doon waxtaan kañ xuloo ñu dañuy waxtaan ah. yaa nag war ngaa bàyyi lii yow boo ñëwee fekk ah. bàcc toog rek ngay yuuxu di def nii. sa yii moom la ko war a bàyyi wax dëgg yàlla yàlla. Ah, ah, am naa droit waxtaan ak suma jabar. awa awa maa mënta supporter bàcc maa buggul bàcc. yow xanaa li ma wax dégg ko bugguma ko. ça je le sais man xam naa loolu. mais nag yàlla dafa dogal ku nekk ak sa jabar c'est ma femme. mënoo ci dara. waaw waaw waaw yow fan. eh wala du ko jaaxle. non mënuma dem maman je suis désolé damay waxtaan ak suma jabar je suis désolé. billaahi bàcc su ma la waxatee ju ko jaar nii dama lay mbëkk su ma la waxaatee jógal jaar nii dama lay mbëkk joxuma la jabar jooy ndulli di dóor gu mbëkk di ba joo jaar ni maman Sou nga baal ma su suis désolé. yow da ngaa seetaan wax ci man man yu ta sa tànk bi gaaw. non mais ta parce que jabar laa fi am ku nekk ak sa eh, jabar ma fii amoo fi jabar. ah eh, bon justement awa mu ngi nii toog ñaan ko baat na gaaw nag eh, baat bi ma ne may ko ko may ko nee ko may naa la ko. ñaan ko baat yaay yaay sa poñe bi laa la wax. lii pour la dindil ñaan ko baat yaay dindil sa poñe bi dindil yow ñaanal ki baat yow yaa doo sa poñe bi waaw ñaan ko baat waaw dindil dindi ma wala waaw bi gaaw ñaan ko baat dindil ne ko may ne ko may sama baat waaw léegi may kan moo ko defati yow yaa ngi ñëw fekk ay nit di waxtaan xamoo nu mu demee ngay yuuxu pareegu ma ngay poñe ki kii sama jëkkër la vraiment ah sala la sama jëkkër la awa ñaanoo kii baat ma baat de aw ñaanoo bàcc baat man yow yaa dégg ma ne damaa ñaan baat ah. dangaa dangaa dégg ma ne mu ñëwee ba tey ma ko ko ñaan baat awa jógal baat jóg jóg leen eh jóg leen jo eh, awa jógal jógal. ma sama yaay bi mu xanaa. awa jógal awa jógal. da lay doox ah jógal ñu dem jógal eh bul ma romb ma ne. non sama leex lay jël romb ne yo xanaa bu ñu doon maye baat sax kooku kenn du ci maye baat. boo ñu maye baat kay sax sa saag ba sa saag ba fa nga koy teg man lii naa ko yóbbul Adama Ndoye naa ko yóbbul sama bopp yow sa saag bopp awa billaay awa tey dama lay rey. fooy maa bëgg tey sérieusement ñu waxtaan man ak yow c'est aussi gannaaw ay jàmm nag aussi quoi parce que y a des choses qui se sont passées yoo xam ne fii ci kër gi il faut que ñu éclaircir ko et puis c'est des problème de survie nationale sama dund mi ngi ci ma bëgg na tey nga wax ma réellement ce qui s'est lan moo xew du début à la fin am na amul yow yaay ndey mbili ji parce que yaay jëli yaay indi yaay indi yaay yóbbu yow yaay lépp yaay centraliser lépp tout ce qui se passe dans cette maison là su génnee yow la su duggee yow la yow yaay ministère en fait de l'information sosol nañ ma nag ci biir kër gi ku nekk a ngi wax naan caam caam caam te bii nag dafa ëpp c'est des problème de ëmbal lañ wax mon ennemi là dans dansa maison là ba nee na man gelo gami laay def tout ça mun mënutuma ko muñ quoi dama bëgg nag tey ma la yow fii lay waxtaan waxtaanee ma la yow nga wax ma réellement ce qui s'est passé am na wala amul foofu daal laa yow. pare nga li nga bëgg a xam man yaakaaroon naa ne xam nga ko pare. Hmm? parce que tamit xale bu jigéen bi wala waxoon naa ne day daan dooleem yaa ngi dégg te daa am loo xam bëggoon na la ko wax am na nag ñu mu cité te ki mu cité xëy na tamit euh, noonu la mën a demee quoi moom boobu daal nee na daa ëmb te comme dafa ëmb ñëw na wax ma nag mais mais yow ma laaj la booy bi danaa ñëw fii ci kër gi par deux heures du matin parce que loolu la mu wax de par deux heures du matin dafa daan ñëw di la seet. nee na sax da daan ñëw da daan dem këram yow da nga dem këram par deux heures di matin yaa ngi dégg nee naa ko nag bu dee caam moo def lool non envoie kon man bett na mu quoi franchement man maa wax lool boobu daal nee na carrément yow yaa ko ëmbal parce que bi fi ñëwee indi fi euh, yàq boobu noonu bëggoon na la ko wax mais mënu la ko wax mu ne ma naa la ko waxal loolu moo tax. xam nga booy yaa ngi wiiri wiiri quoi parce que xam yow actuellement danga ma danga ma danga ma yàpp quoi en fait quoi. moi je te pose une question li xew réellement dëgg waaw wala déet nga ñëw fi wiiri wiiri naan ma booy bi ay deux heures du matin ay trois heures du matin ay quatre heures du matin c'est pas ça la question booy. booy je te repose cette question réellement ce qui s'est passé là ba nga expliquer booy bi information yi nu mu demee wax ma ko. de l'information nekkatuma certains sont capables de s'abaisser à certains mesquineries li capable wax nañ ko parce que capable mënut a weesu xale bu ndaw nga daal koy yaa ngi dégg jàpp ëmbal. boy boy. loo xew boy loo dégg li ma loo xew kan moo ëmbal xale bi laa wax. non ëmbul ëmb na wala ëmbul ëmbul. booy yow laay waxal dama ne dama la laaj dama la posé la question ëmb na wala ëmbul wax. ëmbul ëmbul booy bu ëmbul. ëmbul da ngay fen kon. waaw damay lii laa si doon bañ moo tax ma ne ma jël numéro numéro kii ba jox ko neewoon naa ko sax baa ma jox la numéro kilifa kër gi nday jaay mais numéro ba laa ko jox pour l'instant moom mu yeggale information bi. waaw yow laa waxal waaw loolu laa bëgg. dafa ëmb wala ëmbul. non yow lan nga si bëgg ëmbul kay ëmbul. boo wax ji du jeex. waaw jeex na. wax ji jeexul na wala jeexul. jeex na ah jeex na voilà foofu laay. ചുവണ്ടാൾ മീൻ damay fonto yow sama 42 mille ngay lewal billaay di nga fay sama xaalis yow càmm ngay ca yow càmm ngay attaqué yow sama 42 mille fay ko ma ba léegi war di fen rek di nga fay sama xaalis yow. billaay sa gos laa dinaa ko génn ca biti mais lépp kenn la rek donc kese muy ba voilà lépp moom moo ko fomenté di début à la fin pour lan pour sama sama defet rek waaw il me traite maintenant de gélogami waaw sa polygame laa sa balaa waaw mais la xoolal man yow la nañ dem rek waaw même sa femme la cette vipère là elle vient m'attaquer baax na man ak moom la set nday jaay là lépp moo ko fomante elle n'était pas la lépp la lépp la lépp feeñ maa ngi yéen la quelle famille